muy balu yàlla muy julli ci yonent bi muy tudd yàlla ñett yooyu ci la sikkari tariqa tijaaniya taxaw xadisul qudsi bi ba tey ci tudd yàlla yonent bi nett na yàlla wax na ne laa ilaha illa allahu xisni man qaalaha daxala xisni wa man daxala xisni amina min azabi mu ne laa ilaha illa allah mooy sama tata képp ku ko wax dugg nga sama tata te ku dugg sama tata mucc nga ci sama mbugal kon sikar yooyu mooy sikari tariqa bi ci wirde wi ci suba téeméeri yoon listixfaar téeméeri yoon salaat ala nabi téeméeri yoon laa ilaha illallah loolu la ñu war a def ci wirde suba loolu la ñu war a répété itam ci wir daaw ngoon salaatu ala nabi boo mën di jëfandikoo nag ci wirde baax na waaye soo ko defee salaatul fatihi moo gën ndax yool biñ ci séentu ak wasifa yi nga xam ne moom lañuy def gannaaw timis gu nekk dañ ko faral di def gannaaw timis waaye biir vingt quatre heures bi waxtu woo ci wir daal rek waxtu woo ci wasifa rek baax na wax yéen a ngi koy gis ñuy list ballu yàlla fanweeri yoon julli ci yonent bi ak salaatul fatihi juróom fukki yoon wasifa moom ala foog salaatu ala nabi bi nekk salaatul fatihi di wut ne salaatu na nabi bu la neex nga ngay defee waaye juróom fukki yoon yi salaatul fatihi bi dafa war a nekk ci wasifa wi laa ilaaha illallaah téeméeri yoon jawaratul kamaal fukki yoon ak ñaar noonu la ñuy wasifa ci koo xam ne njàpp lay wasifa su fekkee ne dafa tiim wala yëpp mu jàng jawaratul kamaal fukk ak ñaar mu jàng salaatul fatihi ñaar fukki yoon mu taxaw taxawaayu jawaratul kamaal ak si sikaru àjjuma mooy ñu daje une njëkk jant bi so ci bésab àjjuma jàng faatiya balu yàlla ñetti yoon julli ci yonent bi ñetti yoon ci ak salaatu faatiha sikkar su fekkee ne mbooloo koy def lim bu ñu am baax na su fekkee ne kenn koy def mën na ko def mën naa sikkar ba ci junne yi laa ilaha illallah maximum mille six ak juróom benn téeméer